njàng mi nga xam ne ci la doon yëngatu moom Baye Ablaye Niang muy xasidey Serigne Touba yi marqué na mboolem génération yi nga xam ne jaar nañ fii ci yoonu Mouride depuis premier xalifa général des Mourides muy Serigne Mouhamadul Moustapha Mbacké ci njàng mu wér dëggu Baye Ablaye Niang bàyyeekoo fi wujj suñu borom mboolem ñi nga xam ne daanañu teewlu bu baax a baax am njàngam di xamle ne xibaar bi tiis na lool. waaw biñ ko yëgee de ni mu def ñëpp rek maanaam tiisoo ko. bu fekkee waree su ko tiisoo tamit xam naa du nu neex daal ñun sañoon ñu lu màggat màggat des fi ba ci kanam ndax royukaay la. di waxaat rek inna lillahi wa inna rajo raji'un ginnaaw ca suñu boroom lañ jóge woon ca la ñu delluwaat tey moom di xew-xew bu rëy di xew-xew bu tiis ci yoonu murit waxuma yoonu murit sax waaye mboolem képp ku jullit rek xam nga ne tey ji am nga aw tiis boo xam ne ni metti na lool. ki nga xam ne moo di taawu bay Ablaye Niang di Mamadou Niang di xamle ne seen waajur wa wàcc na ndax liggéeyal na Serigne Touba ba wuy ju boroomam waaye li nga xam ne moo di ndono gi ñoom daañu ko wéyal. yàlla def na ah dund na quatre-vingt-quatorze ans ñu ngi sant sunu borom bu baax a baax ñun njaboot get wax dëgg yàlla li nga xam ne ni moo la nekkoon di ci liggéey toqatal taqatal na si njaboot gi yëpp ba fi ñu toon waxuma la doom yi waaye sët yi rek kenn ku ci nekk fi ñu toon la mu daan liggéey boo ko tegee ci tànt mu defal la loolu waaw dadaa dafay wax ne moom mi ngi sant borom bi bu baax baax Baye Ablaye ña ngi yàgg a ñi nga xam ne ñoo di taalibe murit yi ci xaside yi Serigne Touba yi am njàngam loolee nekk seede yoo xam ne ñenn ci taalibe yi ñu tàllal suñu micro fii ci Touba xamal nañ ñu ko. muy ku daan bégal taalibe Seexuna Ahmadu Xadim yi rawatina jànkati xasir yëpp nga xam ne nii bari bari na jànkati xasir yoo xam ne nii eerub suñu Abdoulaye Niang ci lañ leen xamee woon ci lañ leen daan dégg ñu koy jàng te booba yàgg na ay 90 92 ku mel ne suñu xaarim gi ñooñu daan nañ leen dégg ñuy faral di roy suñu Abdoulaye Niang wax dëgg yàlla moom di nit koo xam ne nii magum lislaam la magum taalibe la koo xam ne nii dundam bi lépp da koo jeexal ci xaside Cheikhuna Ahmadou Khadim yi daan tekki ndigam guddi ak bëccëg nekk ci liggéey Sëriñ Tuubaa wàcc. wax dëgg yàlla xaside yi moom njàngum pastif la ci amoon ak yéene waaw ngeen loolu yëpp moom bëgg Sëriñ Tuubaa xaside yi rek moo ko war waaw. la koo xam ne tamit liñ ko xamee woon mooy njàngum xasaay di bokk na ci mag ñi ko doon jàng ni ko sëñ bi bëggee woon daawuñ ko rax daawuñ ci dugal lenn. daaw ci dugal leen loo xam ne bokkut ci di ko defee ni nga xam ne noonu la ko sëñ bi bëggee woon ku ko mas a dégloon boo xamee dara ci xasaayit yaakaar naan sa xol dana tooy ñi nga xam ne ñoo di jàngkatu tey yi war nañu roy bu baax a baax ci mag ñile rawatina ni nga xam ne noonu la Baye Ablaye Niang daan jàngee muy jàng mu dëggu te du ci rax leen yi caaxaan soñe bi ñu ci soñe mooy ku bëggoon xasida yi la te da ko daan jàng mu wér te li ci ëpp solo mooy ak mokkal amoon na ak mokkal ndax daw ñu gis ab Abdoulaye Niang di yor ab téere di wëlbati te léegi bari na gone yi jàng yoo xam ne dañuy yor ab téere di wëlbati waaye teewul li ci li ci ëpp pëseef mooy nañuy mokkal bu baax a baax xasida yi nga xam nii buñ ko mokkalee maam nga yor téere bi di jàng ak nga bañ koo yor ak di eh, roy gi ci ñoom lañ daan jàngee nga xam dañ daan jàng rek te yàlla tax léegi nag yi fi daa bari ba gone yi léegi dañ cee dugal ma mbaalum koppar bi da cee bari lool nga xam loolu day dem ba day yàq lu bare bare. maanaam bu ñu ko mënoon moom bañ ci raxal dara dara dara ci njàng mi euh, dina baax lool ndax sëñ bi mësuta nangu ko rax njàng mi kenn ñi ko daan jàngal muy ñaar fukk ak juróom daan jàngal fa njaareem amul kenn ku mas a ñeme rax dara ci njàng mi. mboolem ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi wéy di ko ñaanal. jéggal ko te teeru ko te taroo ko ak xasida yi sëriñ Touba ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu borom ba foofee mu nekk sunu euh, daqal ko fi mu jóge sunu borom fekk ko fa ak xéwal ak xasida yi ci daraje sëriñ Touba yàlla sunu borom ba defal ko euh, tawféexu barsax waaw. kon nag noo ngi ñaan ci barkab Cheikhuna Ahmadul Khadim mi nga xam ne nii ci ay xasidaam rek ci la daan yëngu guddi ak bëccëg ak yëngoom ak dalam. mu fekk ko fa lépp loo xam ne ab taalibe dina ko soxlawoo ci bàmmeel ñoo ngi ñaan ci barkab Seexuna Ahmadul Xadim mu dajee ak loolu bisub tey jii ba ilaa yawmi diini Baye Ablaye Niang bàyyeekoo fi ci 11 mars bi 2020 ginnaaw bu mu amee juróom fukki at ak ñeent wuy ji suñu borom jëfam ak liggéeyam des fi taalibe ñu ngi wéy di déglu am njàngam mu mel ni tey la koy door a def ndax day dugg ci seeni xol bu baax a baax رجعت الله بكتابي إلى دخولي جنته جعلت بالفرخان ربي المعين ملكت نفسي وسازعت لينا